안녕하세요맞네맞지 وسمائه سيدنا محمد عن الدعاء من استوائه وإنا وشعشعائه يحيى سيدنا لشيخنا التجاري سيدنا محمد سامحني ولا تهل في شيء طريقة رسمها بجسمه هنيئا لنا من شواقة في حنين سيدنا محمد xam ne jamono dafa am lu mu laaj jamono daa am lu mu laaj ci sant bii lu fekk si waaye jamono am lu mu laaj ci ñuy fekk si Cheikh Abdoulaye duñu yàggal nu lay dalal bu baax ñëw ba ci sa kër booy jur bàyyi sëñ Xasan Seck xalifa général bu Thiénaba waaye fii nga ñëw fi nga dëkk macha allah nu lay ñaanal fan bu ak wér suñuy suñ la joxee kàddu porte parole déglu la ba jël kàddu bi ba wax jotaay bi ak ñi ko toogee di xam importance bi bàyyi as dox sa yoon wi ak sa toogaay bii mooy li mu jàpp mooy doomam rek moo jóge ci këram ñu wàcc kër léegi li nga nekk kees lépp ñun xam nañ ko ndax dañoo jaxasoo sa sa njaboot sa wajur bu baax góor gi Assane Dieye ci mbaax lañ ko xam ci njub rek lañ ko xam waaye tànkam teg ko ci saaka mu saxee na ci lañ ko ba meññale ci loolu ngay dund loolu ndaw kees yëpp nga boot leen téye leen jël ñëpp teg leen ci aw yoon waaye nag am ko yàlla na toobaay Assane Seck sa jëmm nga jël ko seere ko ci moom muy président Macky Sall te loolu il faut ñëpp nangul ko ko yàllaa ko bëgg la président ngir jëmm yàlla mu téye ko ngir jëmm yàlla mu teg ko loxo ngir jëmm yàlla maam ñu ngi lay wax ni jëmm ji toog sa daa jël daa jël jëmm moom mu jeex te tàkk sëñ Assane Mbaye bii nag di sa doom daa jaxasoo njabootu kër ñëw gi sëñ Ablaye ñëw fii moo ci dox wax ci xamal ko ne ko man damaa jaxasoo caraba caraba rek laa am bu ma seyoon fooy dem dañ ci boole canam waaw loolu nit ku baax koy def ni ko danaa jaxasoo njabootu Baye Assane Seck Birane Seck ngi nii di jërbaatu ab di ñibbi lu yendu ci Assane franci Birane lu yendu ci Birane franci Assane mu ne ko nag bu ma seyoon tournée yi ngay def ak fooy def mbir nga boole ma ci canam alaa ji ngay loolu na nga ko xam te bàyyi ko xel bu baax a baax salaamaaleykum wa rahmatulah aleykum salaam xam naa jotaay xam naa suñu noppee rek dañuy jox suñu bàyyi Talla Diagne mooy jaraaf dëkk bi ñu dalal rakkam xaritam Abdou moom mooy président comité d'organisation waaye jotaay bii kii dafay nit ku baax di jàppale xaritu sëriñ bi damay wax ci Sénégal ni sëriñ Mountakha ak Baye Assane Thiénaba seen bëgg président Macky Sall seen cofeel ci Macky Sall dafa dem ba fees seen jëmm ba mënatuñ koo nëbb kon képp ku yëngul président Macky Sall war nga fi def teraanga war nga fi dugal sa loxo jëmm yooyu ndax féete nangoo gi ñu nangu ñaanal président wane ni président seen doom la te olof dafa ni féete day xañe wërsëg looloo tax Abdoulaye Dieng li muy def ci kër diine yépp mu bàyyi ci xel canaba ma damaa bëgg sa loxo dugg canaba ndax li nga bëggal président bëggal ko Sénégal bëggal ko Thiès ñaan bi agsi ci yow mu gën a yomb ci yow biñ ko ko waxee mu doon ku bëgg baax kuy rafetal tegu ci baax sax dafa ni dañuy jàpp bis rek daal fay dem tey mu jàpp bis bi bii ñu guddee lool waaye ñu informé Birane comme mënuñu woon a woo mag ñi ñu xëy ma fexe jot Abdou jot bàyyi ma dikkee jot monsieur le maire ndax nit soo koy jàppale suy ñëw ci kër ñam fa am di xarit ak di soppe ak ay nawleem ak ñamu séqal laa nga politique ñoo déggandeem ni ñëwoon na fi ba génn looloo waral tamit xale yi ñoom ñëpp di ay ay soppee am laay ñoom ñëpp ñu fexe ba ñu ànd gunge ko mu ñëw siyaar si sëriñ bi sëriñ bi ñu ngi lay ñaan ci dara day siyaar bi am laay siyaar si nga ñaanal ko muy yokk ba ilaa yow bi ci zahir ak ci baati li mu yéene président Macky Sall ci mu réussir te jàpp nañ ni sax réussir na ak rafetal gi mu rafetal ba toll ci jeexal mu jeexal ci jàmm nekk ci jàmm yàlla yokk ay ndomba tànkam ci yeneeni yeneeni yeneeni kuréel di ñaan ki ko président joxoñ ngir mu jël dooleem ak kàttanam ak mbooloom jàppale ko ngir fi magi mu toog ko muy le président Amadou Ba ñu ngi lay ñaan ci barke weeru tedd bii ci barke barab bu tedd bii ci barke bis bii ñu jëm nga ñaan ci darajay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam Amadou Ba remplacer président Macky ci bopp réew mi ndax ñun ñëwoon nañ fi di sàkkul président mu toogaat ànd ak bàyyi am kon su président joxoñee Amadou Ba moom joxoñu président rek lay xool xoolul feneen kon nag bëgg nañu mu am ndam ci sasoo ko président sax ci biir Thiès ak ci biir département dina ko ànd ak Abdou dina ko ànd ak monsieur le maire dina ko ànd ak ñun xale yëpp incha allahu rabbi ñu bañ a guddal kàddu yi ñu delloo Aliou Ndoye kàddu su ko defee mu jox taalam dalal rakkam dalal xaritam kàddu fu muy dem mu soofaale wa salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah bàyyi sëriñ Thiénaba ñu ngi lay nuyu nuyoo bu ànd ak siyaar ak xorma di nuyu sa porte-parole di sa njaboot bi nga xam ni ñoom lañ fekk ci saal bi ñu bokk ñoom wàccuwaay ci sa kanam di nuyu it eh, directeur bi nga xam ni moom la président wóolu dégg ko aéroport muy nag ko biritoo ndax bu fekkee ni woon dafa damaa bàyyi ba mu nekk directeur aéroport ma soog a xamante ak moom man naa am du ma gis ndax man bindoowuma noonu waaye yàlla dafa dogal ñu nekkan ci ci paaru président Macky Sall maa ngi moom ñu ànd lu bari waaye mu bari lu mu jànkonteel bari na tey ku ko xam wala ku koy jigéen waaye li ma xam ci li mu jànkonteel ci parti bi xamu ko ci yàlla ngi nag état moom noonu lay doxee jamono yoo xam ne jël nga sa tànk pour jàppale ki nga xam ne moo fi nekk di kilifa foo jaar di nga bare ay pakk waaye nag pakk mënta ñàkk ci aw yoon waaye bu la yàlla dimbalee ngay di muñ defal di muñ ba àgg ci kilifa gi su boobaa yàlla mën naa dogal lu la naqayoon dina la neex moom nag loolu moo ko dal ñuy kontaan bu baax na ci li nga xam ni moom la ko xam ni moom nga wóolu dénk ko gàmmu gi ndax programme gàmmu gi moo ko yor yàllaa ngi dogal E mu ànd ko ak sama nga xam ne moo fi nekk sama premier adjoint mi ngi fi di Gora Diagne e e nga xam ne dañoo jàpp ci commune bi ci wàllu wetu président Macky Sall muy ndaw yi nga xam ni moo leen wër. yàllaa ngi dogal nag jamono day dem ba la mag doon def déetu ko man waaye ku ne moom daal di commencé fi mag yam ñoom loolu moo leen dal lépp loo xam ne président Macky Sall mu ngi ciy yëngu ku gestu dina leen ko man équipe ma yor noonu la mel kon ñu di la ni bàyyi sëriñ Ablaye Dieng nii nit ku baax la mm-hmm. as gor la ak jullit la nit ku gore la mm-hmm. waaye nag ku am njariñ la ndax kilifa soo àndee ak moom da am njariñ mm-hmm. di fab li nga yor di ko joxe tey bañ lu wate ci kilifa gi nga jël ko soog koo mën a joxe déedéet nit boo ko bëggee dimbali te muy kilifa da ngay génne sa alal di def bis bu jariñu jotee yàlla mën naa dogal bi nga jariñ waaye nag sa yéene la la yàllay fay kon Ablaye ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi lay gërëm may feddliwaat sama diggante ak yow sama kóllëre ak yow uh, gëj gee giseetu dara maa bindoo noonu parce que nit ki soo dee ànd ak moom ba dara dul dara nga dem ba yàlla dogal am lu feeñ da xajal ñi ba soxla loolu moo ma dal sama diggante yow kees ak cene ba soreewul Mm-hmm. mais defe naa maag yow ba nu gëjee ko ak léegi yàgg na te saa bu nu jokkoo rek mm-hmm. ittey askan wi laa la wax mm-hmm. mooy xale yi nga xam ne danoo soxla ab liggéey nekk ci kippaaru Serigne Thiénaba néew doole lool cere Thiénaba war leen a jàppale am ci yéene waaye nag amagul fu mu leen dugal xale yi nga gis nii kenn ku ci nekk sëñ Ablaye ñii soxla nañ ku leen dimbali te it loola laa la wax ñëw naa ci yow ñaari yoon téléphone naa la ñetti yoon <coughs> waaye itte yi seen itte laa leen itte booba nag fajoogul ba léegi maa ngi la koy diisaat maa ngi la koy dénkaat ñu ñëpp soxla koo xam ni ñëpp da koo soxla loo am na la ma ci dimbalee doy na ñu xaar leneen man nag maa ngi lay seedeel ni na ma doon dundeeg yow démb lay dundeeg yow tey duma la woo téléphone mukk mbaa ma sol sama dal dikk gis la soxla su jëm si man ndax par exemple sa mi sun kilifa du ma ko def lepp lo xamni joge na ci mom ñew ci man ci askan wi la dem waye duggul sama poste lolay lay continuer suma joxe ma jox askan wi suma joxul ma génne jox askan wi ndax lolu ngay def ba tax nga nek ci nga nekk tey kon ñu ngi lay sante bu baax ñu ngi lay gërëm di nek nag ñi nga àndal parce que monsieur mbay xalé la boo xam ni xelam ubbiku na ndax suba teel la ma woo ni ma président dafay war a ñëw tey seet sëriñ bi te nag am ne ku fay dugg da jaar ci bunt buntu yàllaa ngi dogale dinaa seereel ci kanam bàyyi sëriñ Canaba ni genn kilifa bu fi ñëwee te ànduma ca daa koo yëgul waaye kuy ñëw wooma ni ma maa ngi ñëw dinaa sol sama dàll ànd ak moom comme nii ma def kuy ñëw nag te woowuma ma toog fa ma toog ba saa ba ma soxlaa woo lii rek mooy waral ndaje yi bari duma ko fekke waaye nag nii nga def tey nii mel na mu yow yaa ko def ci parti bii nu nekk di coalition Benno Bokk Yaakaar ndax nag kuy kuy dugg ci néeg da ngay jaar ci buntu ba dëgg la jaar ci buntu bi ma dalal la ànd ak yow dikk teg la ci loxol seen Thiénaba wala ñëwul dara waaye nag ku ko defulit ma xam ni noonu la àddina bindoo te xel moo ci agul waaye duma ko jàpp waye iya, kan iya. nak yow li nga def ni reyna ci man te di nga xamni reyna ci man te du li le parda jox doom nga soxla man ci politique lay yëngu xamna li nga bëgg dafa nga bëgg ba fi nga wara jaar bo fa jaaré di nga ca dem parce que ñun ku ñu jàppale ci département bi di nga yéeg ma nga lay seedeel ni nak maire département bi yépp ñi nga lay nuyu ñi nga lay sant ñi nga lay gëreum waye yalla nga dogal ñun ñëpp ñoo bokk genn kàddu barki big laa ñëw mais sa coup de téléphone ki nga doon téléphone maa ngi moom ñoo nekkan ci hôtel bi di reer bi mu paree la waxtaan ak man ni yow la doon jokkool ni danoo bëgg a daje ak yow ma ne ko heure bu ngeen ko jàppee lenn da laa xam ne su ko ngeen ko jàppee te te du heure booba du ma ñëw muy bisu gàmm waaye lu ngeen jàpp lu dul bisu gàmm bu ko yàlla dogalee dinaa teew tey liberté wóor mooy maire département bi bu yàlla dogalee ñu jàppale la fa nga jëm di nga fa àgg fa nga jëm nag xam nan te dinañ ci waxtaan ak bàyyi sëñ bii mu ñaan ci te moom mii lu mu ñaan yàlla dina ko nangu parce que maqaama moom foofu la taxawee dëgg la maam ahmadou ndaat moo jur waajuram muy maam Momar Talla Seck maam Mor Talla moo ko jur du sët du xarit doom la kon kooku lu mu ñaan yàlla nangu di sant bu baax nag bàyyi sëriñ bi équipe bii nga xam ni ñoo nekk sawet bàyyi demba jiite leen ndax nit bu fekkee ni nii la muy def da nga koo war a def buñ ko ko buñ la ko defalee da leen a war a sant war a leen a gërëm waaye waroo am loo cay xebet wala loo cay gëstu man bindoowu ma noonu bàyyi demba ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla gën leen a jàppale bàyyi sëñ bi yal yàlla yokk aw fanam lépp lu mu soxla ci diine jii lépp lu mu naal yal na ko àggale sëñ Ablaay daal bàyyi sëñ baa ngoog njaboot gaa ngoog yaa ngoog man nag li ma wax ak li ma war a wax ak yow dama cee ñamale tuuti rek waaye li ci ne ci biirum nekk lañ koy wax ndax li ma soxla ci ñii force nga def ndax yaakaaroon ku dul man nit nag bu fekkee yaakaaroo lu dul moom te fu mu jëm foo jëm ànd ko muy yëg ci kaar yi di daanu di jóg lépp loo xam ne génn ci parti da ca war a am da cene ba séddoogul benn cër na mbaa yëguma ko bokk séddoogul benn cër ci état bi mbaa yëguma ko ba ma toogee 2014 ak tey état jëlaluma kenn ñi te mennum yow laa jige loo xam ne xañ naa ni la téye sa loxo ni la defal ma lii salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk bi na sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen di nuyu di leen ziyaara di leen bal àq ñaan yàlla kàddu gi ni bëgg a yàlla na fekk ñëpp ci jàmm di jiital ci nuyoo bi sunu wayjur sunu sëriñ sunu xarit Seexu Thiénaba mi toog ñu ngi lay ñaan yàlla toogaay bi nga toog yàlla na yàgg lool bu yàggee ba noppi yàlla na neex lool mboolem ku fi mas a jaar toog fi toogaayu Seexu Thiénaba sa xilaafa gi yàlla na ko dàqale yalla am na ko te man nako yalla nako yalla ko yàlla defal di nuyu mbollem sa njabotu bopp gi nga xamanteni ño tok wetti la ci jotaay bi ñom ñepp kenn ko ci ñing lay jox sa way di nuyu monsieur le maire jërëjëf lolu nga wax ni wa aatu buyuuta min abwaabiha soy dugg ci néeg da ngay jaar ci buntu ba te yow yaay buntu dekk bi fi ci walu état kon bu ndee ànd suñu kilifa bu tedd gii war a dugg si ci dëkk bi kon dana jaadu ñu jaar ci yow mu yëgal la ni la maa ngi ñëw nga ànd moom gungi ko dalal ko loolu moo def wàccul yoon wi waaye itam ndokk bi nga ko xamee jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm sëriñ bi DG mi ñu àndal dafay ñëw ci ñaari anam anam bu njëkk bi mooy day anamu doom di sët di mbokk di jarbaat ndax dëkk bii yàlla dogal na ak njabootam a ngi fi ndax magam fii la kër këram dëkk muy sëriñ Moustapha Diop Moustapha Ndiaye mooy borom këru magam di soxna Aji Jéey kon moom fii la dëkk ba ca topp mooy yàlla dogal na ku ne xam na sëñ Mor Ndiaye Daabaay ca ties mo jur aji may mo na njaay mi ko jur kon mom doom la fi ñewé jarbat la fi ñewé mbokk la fi ñewé leen cër bi ci topat nak moy cër bi nga xamanteni mom la ko yalla dégg yalla yag ci loxom muy cër bo xamanteni ni président Macky Sall moko ko jox muy directeur IBD ci bir lol nak mi ngi and ak njabootu bopam gi mu sekkal lepp Eh, kële toog di Mouhamed yàlla dogal di kenn ci moom di ku baax koo xamante ni ku gis DG Ablaye Dieye séen ko moo toog ne lekk ca kanam kële féeteeg moom sol mbaxana mi mooy suñu coordinateur ñu ci Yacine Diagne yaakaar naa suñ la waxee way juróom di nga ko xam alaaji naatu ko Diagne ca Thiès moo doon way juróom di ko baax moom i tamit ñu ànd ak mouvement Siggi jot na gépp nag nga xamanteni ni mom nak moy mbolo bopam mi nga xamanteni ni lu mu am tay jii mbolo mom moo bu gunge bam mu fi kon tay mo ñew nak di sakku ci ñaan ci bis bu tedd bi ñu sayyidina Muhammad di ñaan nga yag fi lo tànd ak wér nii ko sëñ Talla waxe nak mo la demit jëm ju bax la ndax mbokk bu mu am dimbil na la mu am dimbil na la ñi mu andal moy dimb andi dembu amul ànd ak daaw bu déwénee mu ber keneen sàndaat keneen déedéet mboolem koo gis mu ànd ak moom rek moom ñoom ñoo àndoon démb ak bërki démb bi tey jiit bi neexee mu àndaata ñoom wala leen ni kat démb laay indi waaye ñoom ñii nag ñoo xam ne kat tey daa yokk moo tax ñoom ñu indi tey woon ko ne ko kat dañuy ni ñuy àndee yow mooy jox la cër bi ñu la war a jox ndax lii la yàlla dogal suñu diggante yow yow na indi nga démb suñu diggante yow waaye ñun itam dañuy indi tey suñu diggante ak yow ndax loolu la yàlla dogal ci yow kon moom itamit mu ngi koy ñaan yàlla yàlla yàlla defal ko jàmm kon moom kàddu googu la fa ñëwee tànk yooyu la fa ñëwee su ko defee nag ñu jox ko kàddu gi te déglu ko mu yëg ci kàddu yoo xam da koy saafante yow nga ñaan ko yàlla ba lii ko président yéen yàlla na toy ci moom yàlla na réussir ci jàmm ci xormati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf alhamdulilah eh, mbokk DG Abdoulaye Dieye moo leen doon nuyu mu wax ne ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte lool seet si sunu wéjjur sunu sëriñ sunu soppe sunu kilifa sëriñ Cheikh Assane Seck Thiénaba sëriñ Thiénaba di la siyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay di la nuyu nuyu bi gën a kawe nag nuyu gën a am orma ndax nee dëkk bii ñépp xam nañu Thiénaba taxawaayam ci réew ci diine ci sariya ci doxalinu dëgg moo tax mbégte leen ci am noonu mu ñëw fii tey keroog bi fi premier ministre di ñëw man ak moom ñoo àndoon tournée man ak moom noo ànd tournée ci waawoon bi ñu ñëw fii man ni dama lay bàyyi ma ne ko dama lay bàyyi nga dem ma yow kat ndax man Thiénaba su ma fay dem sama jëmmi bopp laa fay demee man ndax foofu laa bokk ndax man foofa laa bokk foofa laa dëkk foofa laa dëkk ña fay nekk samay soppe lañu. ña fay nekk samay fa nekk samay kilifa lañu. moo tax ñëw bii. moo tax tey. ma fonk ko lool ma ko jox ko daye bii ma ko jox tey. ndax sëriñ bi yow. nuyoo bi ñu nuyu sëriñ bi. nuyoo nag. dañuy jaar ci yow. dañuy jaar ko ci jotaay bi ñu toog ñëpp. jiital nee na jiital ci nag sa njabootu bopp gi toog. suñu waxee sa njaboot nag. waxee na sa njaboot. kenn du ci génne eh, nga xamante ni moom la yàlla teg. kenn du ci génne kii fi yàlla teg. Eh, président teg ko fi. teg ko fi. askan wi teg ko fi askan wi teg ko fi. muy monsieur le maire Talla muy monsieur le maire Talla Diagne mi toog. wax nañ ko booy dugg ci néeg. wax nañu booy dugg ci néeg. da jaar ci buntu ba nag. te jàpp naa ni. te jàpp naa ni. sama relation ak moom. nee na relation ak sëñ Talla mii. am na lu mu ci junj rek. am na lu ci junj rek. mais lu waaye lam ci waxul day moom. te relation bi yëpp. te relation bi li ci ëpp. li ci moom moo koy doxal. moom sëñ Talla mii moo koy doxal. nit ku baax la. nit ku am taxawaay. nit ku am taxawaay la. également nit ku bëgg na nit ku bëgg ab dëkkam la. ku gëm Cenaba. ku gëm Cenaba la nag. gëm ni gëm ni. li ko yàlla dénk li ko yàlla dénk. mu ngi koy doxal ci biir dëkk doxal ci biir dëkk bi. ndax sama waxtaan ak moom. ndax waxtaanam ak moom. saa su ne. saa su ne. luy jëriñ Thiénaba la luy jëriñ Thiénaba koy seede. ne lool da koy seede. mosuñu déggante. ne mosuñu déggante. mu wax ma soxla boppam mu wax ma soxla su boppam. soxla su muy soxla su may wax rek. mooy ay ndawi Thiénaba. mooy ndawi Thiénaba. jigéenu Thiénaba jigéenu Thiénaba. ak ak sëriñ bi. nee na kon sëñ Talla monsieur le ñu ngi lay sant di la gërëm di feddali seen kóllëre nee na bi mu am sa diggante ak moom ndax yow de say wax démb moy sa waxi tay rek. engagement bi ñu engagement ba nga jëloon. ngir accompagner ñu. ngir accompagner ko. ngir jàppale ñu. ngir jàppale ñu. ci suñu bëgg-bëgg. ci département bi ci suñu bëgg-bëgg yëpp. te suñu bëgg-bëgg yëpp. méngóog méngóog. bëgg-bëggu bëgg-bëggu. président de la république suñu yéene suñu yéene ci Thiès ci Thiès. Sénégal Sénégal. traduire en acte. moy traduire en acte. vision vision président Macky Sall. ndax loolu rek moom la ñuy dox suba moom la ñuy dox bëccëg moom la ñuy dox it ngoon nee na kon monsieur le ñu ngi lay remercier ci taxawaay bi ci jàppale gi su ma la nuyoo nag nee dafay jaar nuyu équipe municipale bi nee toute la coalition Benno Bokk Yaakaar.

ñoo bokk secteur maritime. ñoo bokk secteur maritime. te yàlla moo dogal rek. moo dogal nag. président Macky Sall. président Macky Sall. jëlee ko ci maritime. jëlee ko ci maritime. yóbbu ko ci aérien. yóbbu ko transport la rek. transport parce que transport multimodal la ñuy def. nee transport multimodal la def. mais moom. mais moom. ku ko xam ko xam. xam ko ci xarañteem. xam ko ci xarañteem. ci liggéeyam d'abord ci liggéeyam d'abord. ndaxte. ndaxte. am na samay yu bëri. am na ay navire yu bëri. moom moo ko doon inspecté moom moo ko doon inspecté. muy expert bu mag a mag. nee une personne boo xamante ni. nee doon personne boo xamante ni. respecté ñu respecté ko am ci xam-xam. am ci xam-xam lool. am ci gëm-gëm am ci ngëm-ngëm. am ci moo tax tey bu ñu gisee si. moo tax tey bu ñu ko gisee ci wetu sëriñ bi. suñu xel day daal lii ñu ko dénk. lii ñu la dénk. muy comité d'organisation muy comité teg nañ ko ci loxo yu wóor. nee teg ngeen ko ci loxo yu wér te wóor. nee na ñu ngi lay sant. di la gërëm di la gërëm. di suñu relation suñu relation. ndax ku baax la ndax ku baax la. dal la ku am ak dal la. foo ko gis rek foo ko gis rek. xam ne da ngay xam ni. mag bu yar la. doo ko dégg si doo ko dégg. mu ngi toog fi mu toog waaye gëm li mu gëm. donc ñu ngi kon ñu ngi lay nuyu bu baax. nuyu na xale yi nekk seen. nuyu xale yi nekk seen ginnaaw yéen ñëpp la. moom Birame Seck mi. di xale bu am engagement. di xale bu am engagement. xale bu gëm li muy def. xale bu gëm li muy xale bu dëgg ci li muy def. kon Birame ñu ngi lay nuyu. di kontaan ci yow lool. ci sa taxawaay. sa gëm-gëm. te yewit bokk nga ci ñi nga xam ni chaque fois ndax may ñaax ci mbirum Thiénaba ñëw bii moom mii nee na taxaw na ci ba tàyyi te ñoom sax buñ ko ko waxul moom devoir la moom lu mu war a def la nee kon day wane rek yéen cofeel bi ngeen am ci sëriñ bi am ko ci dëkk bi. am ko ci liggéey bi nga xam ni Benno Bokk Yaakaar daana ko taxawu ci dëkk bi nuyu El Hadj Diop parti si moom soppee boppam la yàgg na ma taxawu yàgg na ko taxawu di wax ci ma lu baax nee na di reconnaître ay actam te gisantewul nit ku ko sopp la nit ku ma bëgg la ndax wax ju rafet rek lay wax. mosuma koo gis mosuma koo dégg ndax moom it day déglu gaa yi la ku ci ne da lay déglu la nan ngay waxee nan ngay taxawee waaye moom nee na rassembleur la wax du wax rafet lay wax wax ju baax lay wax nuyu ñi nga xamante ni ñoo ànd ak monsieur le maire. ñoom Adama Diop mi ngi toog nekk premier adjoint moom itam ni ko monsieur le maire téye noonu la ko téye kon ñu ngi koy nuyu bu baax ne troisième adjoint bi moom itam ñu ngi koy nuyu ak ñi koy jàppale ci liggéey bi yëpp nee na taxawaayam taxawaayam mooy équipe bi rek bi rek bu équipe bi àndul su équipe bi àndul bi mu ci dëkk bi du mën a dem mais sant bu baax waaye sant bu baax jeune bi jeune bi di dal ngom di dal ngom maire koy présenté maire bi mu ko koy présenté élection 2019 élection 2019 la maire boole ak moom maire boole ko ak moom ñu war a organiser meeting bi ñu war a organiser meeting ko ci ràññee waaye moom ni ko ci ràññee taxaw bi mu ci ci taxaw

li jëm nag. la ñu jëm nag. du kenn lu bëgg-bëggu président. que Macky Sall nag. ndax président Macky Sall nag. ñun amul fayam nag. Thiès amul fayam. Thiès amul fayam. Sénégal amul fayam. li mu war a def lépp. li mu war a def lépp. def na ko. war ñoo bàyyi. war ñoo bàyyi nag. benn héritage. héritage. bi nag. ki war a ànd. li war a war a jiitu. mooy booloo. mooy booloo. mooy doole. wax na ko. ci discours bi. bi mu doon annoncé candidature Amadou Ba mu ni dans l'unité on va gagner l'élection kon nag maa ngi leen di ñaan ñu booloo ànd liggéey ngir Macky Sall ngir sëriñ bi foofu lay jaare sant sëriñ bu baax ci taxaw bi nga xam ni taxawu nga ko son excellence Macky Sall sëriñ bi ñu ngi dellu dee siyaare di kontaan bu baax di am mbégte ñëw fii ci Thiénaba ñëw bi fi ñëw nag ñëw njaboot la ñëw soppe la ñëw taalibi la xam nañu yëg-yëg bi nga am ci moom léegi rek bi ma lay gis naa gis naa cofeel yëg-yëg ak reconnaissance bi bi nga am ci man te loolu bu amee eh, cofeel gi nga am ci président Macky Sall rek cofeel gi nga am ci njaboot am ko ci président di ñaanal président yéene bi mu am ci réew mi ngir mu continuer yàlla na ak ndax noonu président dañoo wóolu la dénk ñu ay responsabilité responsabilité yooyu nag Cees la ko dégg. donc ndam buy am. nee kon ndam buy am. Cees rek moo ko am. Cees ndax ku ñu dégg ay. ndax ku ñu dégg. aéroport xam ne dégg nañ la. xam ne dégg nañ la. buntu Sénégal buntu Sénégal. ndax aéroport. première image boo xam mooy première image bi nga xam ni. bépp investisseur bépp nit ku am daraja. bépp nit ku am daraja. ba wàcc ci réew mii. loola ngay njëkk a xool. amaana nag. vision président Macky Sall vision président Macky Sall. defal nañu aéroport boo xamante ni. defal nañu aéroport boo xam ne. bu mucc ayib la. amaat yéene nag. amaat am ay projet yu am solo. am ay projet yu am solo. yu mu ñu dénk yu mu ñu dénk. pour ñu mën ko doxal pour ñu mën ko doxal. mooy. defaraat aéroport yi nekk Sénégal yëpp. defaraat parce que Sénégal. ndax Sénégal. am na quatorze aéroports. dëkk bu nekk dëkk amoon na ay aéroports amoon na aéroports. loolu. loolu. temps la. woon. président Macky Sall bi mu ñëwee. président Macky Sall bi mu ñëwee. benn programme. te loolu nag nee na loolu nag. mooy defaraat. mooy defaraat. aéroport yëpp aéroport jiitu. ba ca jiitu nag. mooy aéroport Saint-Louis. defar nañ ko ba pare. defar nañ ko ba noppi. ba lépp mucc na ayib ba lépp mucc na ayib. président inauguré na ko daaw. président inauguré na ko daaw. fan yii rek. fan yii rek. lépp pare na. lépp dañ ko war a ubbi. dañ ko war ndax avion yi. ndax avion yi. ñu mën a jóge jas. ñu mën a jóge jas. di wàcc Saint-Louis. di wàcc Saint-Louis. loolu nag. loolu nag. ñu ngi sàkku ñaan ci mën a dem ci exploitation. nee na moom mën a dem ci exploitation bi. yeneen aéroport yeneen aéroport ñu ngi en construction. aéroport Ziguinchor. nee na aéroport jàpp nañ ni jàpp nañ ni. mois de décembre. feeg ko inauguré defaraat é lépp. nee defaraat nañ lépp. ba mu nekk aéroport bu mucc ayib. ba mu nekk aéroport bu mucc ayib. aéroport Wuro Sogi Matam. nee na Wuro Sogi Matam. mu ngi en construction moom itam taxaw pare na moom itam. mu ngi en cours de construction. mu ngi en de construction. presque cinquante pour cent yi. nee cinquante pour cent yi. réalisé nañ ko aéroport Tamba. aéroport Tamba. ñëpp gis nañ ñëpp gis nañu. si si fan yu gaaw. ci ay fan yu gaaw. bi président waree dem des ministres. bi président waree dem conseil des ministres. defaraat naa piste bi. defaraat naa ci ni gën a gaaw te loolu yëpp te loolu lépp. day wane ni day wane ni. ñun gëm-gëm ñun gëm-gëm. xarañte mën-mën mën la ñuy liggéey la ñuy liggéey. te loolu te loolu. bu ñu ko defee bu ñu ko defee. Cees moo ci am ndam. aéroport Sédhiou. aéroport Sédhiou. réhabilité nañ piste yi. aéroport Kédougou. aéroport Kédougou. defaraat nañ piste yi defaraat nañ piste yi. li des li des. mooy tabaxaat. mooy tabaxaat. yi aérogaar loolu ñu ngi ñu ngi ci. kon bi bu ñu ñëwee fii bu ñu ñëwee fii nag. am ay ndomba am ay ndomba tànk am ay titre am ay titre. président dénkuñu ko président dénkuñu ko. dinañ la wax dinañ la wax. li ñu dénk ñu dénk lu mu doon. ak fan la liggéey bi toll. ndax nga mën cee ñaari ndam ci ndam. buñ ci amee ndam. buñ yaa ci am ndam. parce que Macky Sall. ndax Macky Sall. bu nomee doomu Thiès. bu nomee doomu Thiès. Eh, yéen si yéen la xool. ci yéen la xool. ndax cofeel gi ngeen am. ndax cofeel gi ngeen moom. bëgg gi ngeen am ci moom. te bëgg ngeen ko bëgg. te bëgg ngeen ko bëgg. du lenn. mooy liggéey bi ngeen liggéey rek. ak jëf ji muy jëf ak jëf ji ci réew mi. ak li muy def ci kër gi ak li ci kër gi ñëpp kenn naa taawlu. kenn naa taawlu loolu. donc ñu ngi sant ñu ngi sant baax. di gërëm ñëpp di gërëm ñëpp. di beral nuyoo nag di beral nuyoo nag. Serigne Madické Seck. di sama xarit di sama soppe di sama lépp di sama lépp daal. ndax fu mu toog fu mu toog samay mbir ci lay ne. subaa ngoon bu dégg bëccëg di ma taxaw ci biir ak ci biti kon Serigne Madické ñu ngi lay siyaare yow di kontaan bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu Serigne Babacar Seck mee toog moom tamit nga xamante ni sëñ sëñ Abdourahim moom itam bi ñu xamante ci élection locale la woon euh, euh, nee na mu am ci yow cofe lool ñaanal ñu jàppale ay njabootam ñoo may jàppale ci liggéey mu taxaw ci nag bu baax kon moom itam ñu koy siyaare di ko jox wàccuwaayam di kontaan bu baax su may lim soppe yi ak xaritu canabe yi doo fi jóge mais daal mbir mi mooy sëriñ bi sa doom mi ngi nii am yaakaar fii lu mu fi ñaan yàlla dina la ko nangul ndax li ñu dénk lu mag a mag la lu réy la te jàpp naa ne bon ci ñaanee yàlla nangul mu ko. nee na international Blaise Diagne. dafa nekk aéroport boo xamante ni. daa doon aéroport boo xamante ni. dañoo bëgg. mu nekk mu mu nekk ëpp aérien. nee booy ëpp aérien. célébé yoon boo xamante ne célébé yoon boo xam ne. aéroport sous région bi yëpp. aéroport sous région bi yëpp. avion buy jaar buy jaar. foofu mu jaar fi foofu mu jaar dem ci yeneen mën a dem ci yeneen yi. moo tax moo tax. ñu ngi fiy defar benn centre boo xam ne. ñu ngi fiy defar benn centre boo xam ne. ñu koy wax centre de maintenance. ñu koy wax centre euh, mooy fi ñuy defee entretien. fi ñuy defee entretien. ak. Euh, euh,

yàlla na ko àggale projet ay emploi liggéey liggéey bi nga xamante ni bi nga xamante ni monsieur le maire monsieur le ngi koy wax léegi ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ñu ngi koy bàyyi xel bu baax ndax it moom it ndax yow itam mi ngi waxtaan ci loolu naka la ñuy ndaw Thiénaba ndax ñu mën a am liggéey loolu projet yooyu loolu projet yooyu mi ngi en cours mi ngi en cours su paree su paree lu muy jël ci emploi lu muy dana bari lool te su boobaa nag te su boobaa nag dañuy def discrimination positive ne dañuy def dañuy def choix baax jëmale ko ci Thiès jëmale ko ci Thiès ndaxte bay nag ci say wewi tànk bala ngaa laax jaay ba noppi nag incha allah monsieur le maire dégg nañu sa kàddu bu parce que ko woon démb. waxoo ko waxoo wax te incha allah dinañ jàpp. ba ndawi cene ba ba ndawi cene ba. mën a gis seen bopp mën a gis seen bopp ñoom la nekk Thiès war nga caa mën a gis sa bopp. nee na di sant ci biir ci wàllu responsabilité sociétale

loolu moo doon kàddu yi loolu moo doon kàddu yi nga fi yàgg lool ci ànd ak wér di am mbégte ñëw yeesal suñu yéene ak suñu yéene ci yow ak suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon sëriñ Abdoulaye sa wàllu bàyyi a baax waaye maa fii doo fi gan teraanga ji nga fi andi nekkul ju jëkk ji fii miin nañu la xam nañ la bu wér waaye sax Ablaye maa ngi lay xamal ni natt bi gën a rëy ci àddina natt bi gën a rëy ci àddina gën cee diis gën cee metti gën cee metti mooy xalif général. mooy xalif général. ak a métti. ak a métti. da nga àgg ci ay guddi. te doo nelaw. te doo nelaw. diine ji. diine ji. dañ koy yembal ci sa loxo. koy yembal ci te dañ lay laaj. te da nga koy ñaani. da koy ñaani. ak a métti. li di ay lettre. nee na man de ay lettre. mu jëm ci président de la république. ba directeur société yi. directeur société fees na dell. sama lal na dell. wax. responsabilité la. bu dis gan. bu dis gan. tey niroog bànneex. niroog nag waaj génn àdduna. bi ma waaj a dajale mbokk dajale mbokk yi. da leen ni. daf leen bi. famille bi. lii ma nekk. lii ma nekk. da a defe ne nguur la. da ngeen a defe ni nguur la. mbaa bànneex la. mbaa bànneex. yàlla bu mu leen ump. yàlla bu nii la wex. ne yow. doo fi gan. ne maa ngi lay xamal ni. daara. lu rëy ba weesu daara. lu rëy ba weesu daara. rëy. lu rëy. ba weesu doomu soxna képp. ba weesu doomu soxna sa yoon bii. nee si xam naa sa yoon bii. daf maa intéressé lool. daf maa intéressé lool. da nga fay ñëw ñëwaat fi. da nga fay ñëw ñëwaat ci taar. ci taar wax ju rafet ak wax ju rafet ak jëf ju rafet mu joxe ko waaye Macky Sall waaye mënees na koo doon ci poids ci poids waaye yitte ci yitte jaaxal na ma jaaxal na ma yitte ji ku ko bëgg a doon ku ci xalaat doonu Macky Sall. doonu président Macky Sall. ci pouvoir. ci pouvoir. mën naa nekk. mën naa nekk. yomb na. yomb na. waaye yitte ji. waaye yitte Macky Sall. jaaxal na ma de. jaaxal na ma. lépp lu mu def ci politique. lépp lu mu def ci politique. def ko ci aada ji. def ko ci aada. def na ko ci diine. def na ci diine ji. ba mu mat ba mu mat ku yóbbu nangul ko. ku yóbbu nangul ko. ndax bala fee fee jógee. yekkal la doomi soxna yi. yekkal la doomi soxna yi. moo leen moom de. benn doomi soxna. benn doomi soxna. bu doyal ci Macky Sall. bu doyal ci Macky Sall. amul nee amul. man na wax naa ko. nee man na naa ko. nee naa ko. benn buur Moustapha. benn buur Moustapha. te aw ma génn. te aw ma ca génn. buur mos a génn. buur mos a génn. jeexal dem. jeexal dem. te aw ma ca génn. te aw ma ca génn. waaye sa gos gi gisuma. waaye sa gos gaa gisaguma ko. yàlla wanaguma ko. waaye lenn daal ji na ngeen ko def. lenn daal si Ablaye na ngeen ko def. na joxe pouvoir bi. na joxe pouvoir bi. waaye la daal xew moom ko defee. waaye la daal xew ku ko président def. wàcc. wàcc. dugg roppalaan. dugg roppalaan. dem. dem nee loolu bu leen ko nangu nee bu leen nangu loolu ku fi nekk bu leen la toog sa nañ ko teg fii nañ ko teg fii ku mën a yor ngeen boole seen yaari xel ngeen boole seen yaari kon di ngeen mën a dem kon di ngeen a dem waaye Macky Sall bàyyi na waaye na dem na kiit dem na kiit kiit dem dem billahi ñemewu ko ñemewu ma ko loolu de Sall joxe pouvoir bi. Macky Sall joxe na pouvoir bi. dugg roppalaan. dugg roppalaan. ni Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade. ni Abdou Diouf ak Abdoulaye ko jox ak ki nga xel dañuy waaw am na léegi loolu duñ ko nangu. waaw nee nañ ko teg suñu nee na mu ñuy xelal di jox ay orientation. nee Baye Talla Diagne sama meer. wax naa ko ba dem ni ko. Baye Talla. mu ñu xaar. ma ne ko kenn mënta xeex ak yow. ndax dangaa tabe. lu ngeen ko jox. lu ngeen ko jox. nee séddale ko nit ñi. day jël ci alali boppam. ترانغ رك لا خم ترانغ ترانغ لا خم برك سورة الفاتحة برك سورة الفاتحة ني سورة مقل ما يرك لا خم ما يرك لا خم ني ترى بقول لي ما أنا جوخي بجيخة ني جوخي بجيخة wala muy joxe. naa la ko buur joxoon. la ko mu joxe ko. mu joxe jël dolli. jël li fi boppam dolli ca. man wala nga yaroo Thiénaba gi. ne fii kenn juddoo fi mbaa nga yaroo fi. te jànguma sa jikko. te jànguma sa ba xam ko xam ko. amul ne amu fi. joxe rek la xam. ne moom daal joxe rek la xam. ne li ma wax daal mooy dëgg. ne taali tey. alalam. ñëpp ko bokk. ne monsieur le maire daal alal ñëpp ko bokk. waaye directeur. lii la bàyyi taal laa xam. lii la bàyyi taal laa xam. ne maa ngi koy fàttali nga jàppale ko ci. ne damaa yor gone yu bari. jàng ba àggal. nëb seeni dossier. teg ko ca taabal ya. dem ruuj. di dem di ruuji. léeg-léeg nawet bi nangu. léeg-léeg nawet nangu. léeg-léeg mu gàntu. ne maa ngi bëgg. sama njaboot bi. na nga ci def sa loxo. yow. su ma la ñaanalee. di nga am. su ma noppee. su ma noppee. bañ laa ñaanal. bañ laa ñaanal. di am di nga am. ndax nit dana am loo xam ne. nit dana am loo xam ne. liggéeyu ndeyam. liggéeyu moo koy may moo koy may. dana am loo xam ne. am na loo xam ne. ñaanu baayam moo koy may moo koy may. dina am xam ne. am na loo xam ne. jëfi boppam. jëfi moo koy may moo koy may. mu ko mu ko doom. mu lew ko doom. teraanga bu ne. teraanga bu ne. ko ko fii. doomu soxna. doomu mënta génn ñaan. mënta génn ñaan. waaye yàlla sàkk na doomu soxla yoo xam. waaye yàlla sàkk na yoo xam. bu seen xol seddee. bu mu nangu bu xamuñ teraanga ji ngay indi. nee yow teraanga ji ngay indi. xamuñ tërbiyewul. nee na tërbiyewul la. ñëw ci kër gi tërbiyewul. ñëw ci kër gi tërbiyewul. am na ñoo xam ne dañuy joxe alal seen tërbiya. am na ñoo xam ne dañuy joxe alal seen tarbiya. am ñoo xam ne amuñu alal. am ñoo xam ne amuñu alal. ñu fab seen doole yóbbu. ñu fab seen doole yóbbu. boo ñëwee ci kër gi fii mu ne. boo ñëwee ci kër gi fii mu ne. xarmat sax taalibe yaa ngi koy def. xarmat sax taalibe yaa ngi koy def. luy ci luy ci ndox ma robinet yóbbu ca waañ wa. luy ci ndox ma yóbbu ca waañ wa. fii ne boo demee tey ay mu kàllaf. fii ne boo demee nii ay mu kàllaf ñoo koy def. te yàlla la ñuy wut. te yàlla la ñuy wut. te dig naa leen te dig naa leen ko. ci maqaama mag ci maqaama mag mi. jërëjëf Dieye. maa ngi wax sama xol sedd na. man bi ma waxee maa ngi Mbagañ deema deema noppiloo. déedéet bu yàgg ma doy la. <laughs> waaw dina sama xol bu seddee. nee si Ablaye Dieye. yàlla yàlla barke topp la. maqaamam kër. ak maqaamam kër gi. barke salaatul faatiha. nee sëñ Madické Seck sama doom. nit ku riis rek ku am fayda. nee nit ku riis ak nit ku am fayda. boo dee wàññi li ma fi indil nit. booy wàññi ni que ni kuris ak ku am fay fii. ku ne mu ñëw ñaari yoon mbaa ñetti yoon. bis ku ne moom kuris ku am fay la ci bàyyam ñaari mbaa ñetti yoon. du am ku bon mu. seen nit daal du am ku bon. nit baax la. nit ku baax la. di ngóone. moo di ngóone. jërëjëf jërëjëf Seck. yàlla na yàlla fay. la. maa ngi lay ñaanal lay ñaanal directeur. sama ñaan gi. ñaan gi. yàlla na ko yàlla nangu. yàlla na ko yàlla nangu. tàllal loxo bi. jël photo photo photo bi ñoom ñaar ma génn lu jëf Fè, bak, tol, tol, tol, tol. Ben, ben tabi.